أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقين يدقلو إن يسانتي الله سبحانه يجل سيون أنتم بتادبي دوم محمد صلى الله عليه ولا محمد ابن عبد الله أك أي جبوتم أك أي أندان دوم أكيبكو سنيون يالله سبحانه وتعالى دي في جل سوسي كان لول دي لن نيو اسلام موي نيو غينا تيد سي موي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام وعليكم السلام سلام بوكو تيبو تشام اجينن بوك لو خامني نيو سيق بروغرامي تايبي موي الأستاذ موسى جلو أبو فاطمة أكسين سار كنيو على الحاجي سار سيرل بي <laughs> تينا لنيو في يندي موي لا أنت بير يلين تبي عليه الصلاة والسلام دفن الدين النصيحة موي دين lu leneen lu dut laa ante biir rek moom la lolo tax ñu bëgg jël waxtu neew lu toll si two hours pour hanté bi la nga xamné mu ngi aju ci suñu wëri diiné waaye lu may def rek dinaa delloo microphone bi cheikh moussa diallo Abu fatima mi nuyu ak mbokk yi gëna lool ma délo ko al haji saar moom tamit nuyu ak mbokk yi gëna lool ñu ñew xoos si la nga xamné موي سوني موسى بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سنت يالا سبحانه وتعالى لجلي جنت صلى الله عليه وسلم كي صحابة أكتي كيف كنا خمنا جارنا تيون وو كنا خمنا مم لفي أنت بخال تبايي كفي ببلاني دزك برام بجلا وعلى نيجي نيجي نيب لوا كيف كنا خمنا يانجي دغلو الفلاح تي جمنا جيني وخه ñu ngi lay wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu kooku mooy cheikh moussa abou fatima sëñ sa alhamdulillah والصلاة والسلام على أفسه العرب لسانا وأشرفهم منطقا وبيانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا gannaaw bi ñu santee borom bi borom bi nga xam ne moom moo yellool cant di julli si sang bi nga xam ne mooy muhammad alayhi salaatu salaam ki gën a dégg làkk araab ñëpp di leen tatagal si programme bi nga xam ne lu ko lal moom la seen ceebu doon wax mooy laante biir barakallahu ko jazakallahu xayr Cheikh Moussa. Mhm. ñu fas yéene dugg si suñu waxtaani tey. bismillah oustaz. comme niñ ko jiitalee mooy laante biir. waaw lu ñoo wax an nasiha. Mhm. lañ bëgg a biir mooy lu aju si suñu diine. Mhm. te yaakaar naa ne yàlla subhanahu wa taala lam ñu xewalal bëri na lool waaye la sa gën a am solo mooy laan diine islaam dina wax wala dama bëggee ngeen jël benn minute. Mm-hmm. yow 50 seconds kii 50 seconds. Mm-hmm. ngeen wan ñi diine naka la amee solo nit ki naka la war a def ba sàmm diineem bu mu ko rëcc. Euh, Oustaz li nga wax am na solo gannaaw bi ñu santaate yàlla azza wa di ko ñaan moom yàlla mu defal ñu tawfiq li nga wax nii lu am solo hmm. ndaxte. doomi aadama bi ko yàllaay sàkk te yëgu ko yàlla ci xikmaam mu wàcce ko ci kaw suuf te xamutoon ne fii la jëm hmm. yàlla wàcce ko ci kaw suuf muy dund yàlla tabaaraka wa taala namm ci moom ab mbir hmm. moo xam ne moo tax mu sàkk ko hmm. moo tax mu bind ko loolu nag mu doon loo xam ne doomi aadama ci boppam xamul dayo gi loolu am looloo tax borom bi subhaanahu wa ay yonent ngir ñu mën a fàttali dayo googu di wéetal yàlla di jàmm yàlla mm-hmm. dayo la goo xam ne yàlla def ko dëxalante woon ak doomi aadama ya ca asal mm-hmm. bi loolu xewee doomi aadama dafa day teel a fàtte mm-hmm. bi ñu fàttee yàlla yónni yonent yàlla yi pour ñu fàttali ñu mm-hmm. yonent yàlla yooyu nuux moo ci njëkk ñu ñëw bi ci yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam moom it mu def ay at di fàttali nit la tax yàlla bind leen mooy wiital yàlla muy jaamu yàlla subhaanahu wa taala mm-hmm. kon oustaz Kébou suma gàttalee bu baax mm-hmm. lañ bëgg wax fii mooy doomi aadama bi nga xam ne mooy dund ci kaw suuf manta dem mënta dugg mënta génn lu du diine waaw lépp lu mu ràngoo mhm. lu wuteeg diine du dem lu tax du dem mooy dina fiil ndaxte du loolu moo tax ñu sàkk ko mhm. borom bi mu ne woo ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduun mhm. comme que nag loolu moo tax ñu bind ko su demee ba mu jël leneen lu wuteeg la tax ñu bind ko rek yoon ba da koy wàcc am solo ga loolu am solo la ca gën a rëy mooy wéetal yàlla moo ca gën a moo ca rëy am na nag yeneen yi ngay tuddee al ibadat yeneen jàmm yàlla yu nekk ca biir mm-hmm. yoo xam ne diine def ko ëmb mm-hmm. na diine ëmbee aqida tawxid mu indi ko leeral ko mm-hmm. noonu la indee yeneen ponk diine yi tamit oustaz kon su ma gàttalee bu baax di wax ne bépp doomi aadama bu nekk ci kaw suuf sa yaram dafa ajowoo dund sa bakkan dafa aajowoo dund yaram bu nekk xam nañ lu mu aajowoo su lekkut dina dee su naanut dina dee waaye bakkan ba yi tamit am na lu koy dundal hmm. la koy dundal loolu diine la moo tax nit ku ñàkk diine moog bahima ak yem allahu akbar moog bahima ñoo yem allahu akbar diine daf lay contrôlé wu saske bu hmm, hmm. diine daf lay yóbbu ba yow doo yem ak bahima ndaxte bahima yàlla dafa lu ko xel yàlla nag bi mu la defalee xel dafa am lum namm ci yow bi mu ko nammee ci yow soo wàccee lam namm ci yow yàgg bahima ak yéem moo tax borom bi ci suratu tiin بم يوخي بمواتك والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين لم يمتتك موي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم استاذ لو نيه في احسن تقويم قسل بعد بدي احسن لا يا الله تبارك وتعالى وهنا لم تتي ثم رددناه اسفل سافلين لك ورا الموي دفا غيسوت الا الذين امنوا سوكو سوكو امول رك سو امر غوم سو قمي تجفو رك da ngay nekk asfala safili. waaw sëñ Moussa. barakallahu fi kon naa foofu doy yëpp tontu nga yëpp. barakallahu ngir doomi aadama su ba nga xam ne baxi may sax ñoo ko tane. ñoo ko ngir la ñàkk diine ñàkk diine. Mhm. musiba mooy dëgg. su demee ba nga xam ne moo gën a suufee mbindeef yëpp. Mhm. yàlla daf ko waroon a. yëkkati wallaahi ah, nit ki war naa sàmm. jazakallah xeer loo see teg. li ma ciy teg lu néew la. Mm-hmm. parce que sëñ Moussa wax na lépp. Mm-hmm. waaye damay fàttali nit ñi rek. ne xaalis bi la yàlla jox si àdduna. Mm-hmm. ak kàttan bi mu la jox. ak man-man bi mu la jox. ak pexe bi mu la jox. pour nga toppatoo sa diine la. loolu yëpp ay ndénkaan la. ndénkaan la yoo xam ne bu la ko yàlla joxee lim namm si yow. mooy nga toppatoo diineem. nga sàmm sa diine. nga sàmm bu la joxee yii nag. Mm-hmm. sàmmuloo sa diine kon yaa tooñ yàlla. moo tax moo tax li ngay xëy di dem wuti xaalis. Mm-hmm. xamal ne pour lan la. pour ma dellu kër ma toppatoo sama diine. macha ñam bi ngay lekk. Mm-hmm. pour lan la ma dëgër ma jaamu yàlla. fan yi rek ñu may wax benn uh, borom xam-xam bu mag. xaajuwul faafu. ñu ne bu demee. dafa feebar. waaye bu musaan jóg taxaw di julli feebar bi day dem. allahu akbar parce que luy xalaat yàlla rek lay xalaat. nit ki sa diine moo la war a jaral lu nekk. li ma bëgg a wax daal loo am si àdduna bi daal. Mm. teg ko si waxi Moussa. Mm. loo am si àdduna bi xamal ne yàlla dala ko jox pour nga toppatoo sa diine. foofu waaw. jeexal na mbir mi yëpp. waaw mm. sa yëngatu yëpp. pour nga saxal sa diine. waaw. borom bi mu ne laan yaa alladina amanu taqullah xaqa mhm. tuqaati mhm. wala tamuutunna mhm. illa wa antum muslimun muslimun bu leen nangoo dee mukk te nekku leen ay jullit yoo xam ne jullit islam moo nekk seen diine bon Cheikh Moussa suñ jógee foofu lañ bëgg mooy ne gis nañ ne nit ki dafa war a sàmm diina loolu tax yàlla yónni ay yónneet loolu tax téere alquran bi des fi ba léegi kalaamu rasul sa salam des fi ba léegi boroom xam-xam yi doon yonent bi sa salam ñu ngi fi ba léegi lii de ngir lan pour ñu sàmm suñu diine am na solo ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ne kuréel yi dinañ bari waaw waaw waxtaan na si loolu foog naa te loolu yëpp bëgg naa mhm. yaakaar naa ne pour lan mhm. pour nit ñi mhm. mën a sàmm seen diine so dinaa bëgg tamit ngeen nettal ñu tuuti rek si mbir moomu noonu waaw oustaz xam nga li nga laal nii dafa yaatu yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla def ko joxoon lim joxut yonent yu bari te yonent bi alayhi salaatu wasalaam melut du doomi aadama aadi nekkul rek nga ne saaru doomi aadama la rek noonu mm-hmm. déedéet mm-hmm. du kooku mm-hmm. moo tax lam doon wax dañ ko sàmm dañ ko ko sàmmloo programme ko xolam bi dañ ko sàmm programme ko lu muy wax lu nekk yàlla ko ko wax loo Oustaz Kébou kooku moo toog ne xeet wii nga xam ne danga am ummatul ijaaba mhm. nga am ummatu daawa mhm. xeet wi nga xam ne mooy ummatu al ijaaba mooy lan ummatul ijaaba oustaz mooy jullit ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla ñoo ñoo nekk ci lislaam mhm. uyus nekk ci lislaam ak ñi nga xam ne lañ ñoom lañ war a woo nekkuñ ay jullit ak yooyu ñoo ñee beneen xaaj bi xeet bu njëkk bii nag yenent bi alayhi salaatu wassalaam moo ñu wax ne xeetam wii dina teqale ko. waaw. waaye kañ la wax lii. gannaaw bi mu ñu sàmmlooyee ne ñu. Mhm. suñu teqale ko day am na fi ma leen di delloo. allahu akbar. bàyyiwut ñu noonu de. sant yàlla même bay. mu ne xeetam dina teqale ko juróom-ñaari kuréel ak ñett. Hmm, juróom-ñaar fukk. juróom-ñaari fukki kuréel ak ñett. waaw hmm. waaye. oustaz bu li ci gën a li ci gën a yiim mhm. mooy lam ca teg mu ne lépp dina dellu sawara ba des ba des benn oustaz bu sànq rek maa ngi koy wax xale yi ne leen kon ñun dañu war a xool ci fan la ñuy bokk am na solo ndaxte yonent bi moo ko wax te du sa bàyyi du bàyyi keneen moom la yàlla tànn yàlla yónni ko sallallahu alayhi moom moo nee خيتم دينا تاكليكو خيل رك كي الله تودي رحيم رؤوف مو ام مو نيك دون كوكو نيو دي لا واخنا وستفترق امتي مو نيو نيلا كلهم في النار الا واحد كو يكو ام يرمني كوكو مو لاي واخ دي مو نيلا كلهم في النار الا واحد سبحان الله وساس كون دينا ام صلو pour julit ñi wara xamné mm-hmm. dañ wara laaj dañ wara jang mm-hmm. dañ war a déglu. Mm-hmm. xam-xam. Mm-hmm. balaa ñuy sóobu ci luñ xamul. ok bu yonent bi alayhi salaatu wa dañu jàngal. Mm-hmm. ndaxte yonent bi bàyyiwul dara. lépp lu ñuy njëriñ ci kaw suuf. dama koy faral di wax fu nekk ne suñu diine bàyyiwul dara yonent bi bàyyiwul dara. xam nga na ko Muaz wala. Eh, foog naa mu ànd la. Hmm. nam ka waxee woon ne yonent bi sallallahu alayhi bàyyiwul dara même picc bu doon naaw sax su ci xam-xam nekkee wax nañu ko. Hmm, hmm. kon kooku bàyyiwul dara. Abu Dar wala Abu wala Abu Dar. naam jëli. kooku su demee benn la. xeetam dina tàqale ko. ah kon loolu lu ñuy war a dégg la de. gaa yi nag léegoo léegi ñu ne la yenent bi nee na ixtilaafu ummati rahma. subhanallah waaw xam naa nag moom yenn dégg-dégg la. Mhm. waaw dégg-dégg bi moo tax fax mu salaf dafa am solo nga koy delloo ci ñële jiitu ci diine. Mhm. dafa am solo torop. oustaz ci gàttal. Mhm. yenent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne xeetam dina teqale ko. waaye bam ñu waxee ne dina teqale ko am na fi mu teg suñ tànk. ne ka bëgg a mucc. Mm-hmm. na nekk ci la ma nekk mën ak samay saxaaba tey mm-hmm. te hadis bu wér la mm-hmm. ne na ca nañ ca nekk benn wutulu nañu kon jàngal nañu ne xeetam dina teqale kon kon bàyyiloo nañu xel kon ku nekk soo ñëwee war ngaa mën a bàyyi xel ndaxte dañ la bàyyiloo xel ñaareel bi mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyiwul la noonu def la jël ne la tiyal ci lii moyal ci lii nekkal ci lii kon soo ca nekkul yaa lool sa bopp waaye moom la mu war a wax. Mm-hmm. wax na ko. Mm-hmm. la mu war a def defal na la ko. alhamdulilah alhamdulilah. jërëjëf Cheikh Moussa. barakallah sëñ Sarr dégg nga la sëñ Moussa wax. dégg naa ko bu baax a baax. lu tiitlu la. lu tiitlu la lu mat a jara bàyyi xel la. xam nga saxaaba yi. Mm-hmm. wax bi doon Cheikh Cheikh Moussa di wax di wax ni sànq. saxaaba yi dégg nañ ko. dëgg moo tax boo indee safaan. si seen diine. waaw foog ñu break la. allah saxe. soo andee leneen loo xam ne alxuraan waxu ko sunna waxu ko. donte nit ñi sax dañ gis ne loolu mooy dëgg saxaaba yi duñ la faale rek. macha allah foog ñu won la ko. parce que gomuñu woon taaxiirul bayaani an waqtil xaaja. mooy dëgg. xam nga tey bu fekkee ne ñun si benn maa ida lañ toog. nit ñëw si suñ dëkk bi andi fi leneen loo xam ne. xamuñ ko si yeneen yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam xamuñ ko si saxaaba yi xamuñ ko si maam maam mataar yi moom mu andi ko dañ war a seetaat bu baax. naka la saxaaba yi doon def wax jamono yooyu. bu nit amee dara. bu nit andee lu mel noonu. nekkul ne kuréel kuréel yi ngay xam ne ñooy yàq diine nekkul ne tey nga commencé. déedéet. allahu akbar. si jamono yeneen yàlla bi la commencé. sallallahu alayhi wa sallam. Musaylimatul Kaddaab bu doon woote ne moom yeneen yàlla la. waaw loolu jamono yeneen yàlla Muhammad alayhi salaam. Mhm. waaye nag ba mu ko wootee ndax saxaaba yi dañ ko bàyyi. déedéet. comme mooy dëgëral waxi Moussa. Mhm. bañ ko wootee rek. xalifa bi si boppam. Mhm. ay ñoom ñoom ñëpp a jóg na nañ nañ ko attaque. pour mu bàyyi yoon bii xam ne yoon bii du yoon bu baax. ku saan andi loo xam ne dafa safaano bu yeneen yàlla Muhammad dañ lay bëri. te loolu moo war a continuer su fekkee ne ñun. ay jullit lañ ay jullit lañ. Mm. su fekkee ne ñun am nañ fiiraange comme ñoom nu ñu amee fiiraange si seen mbirum diine. bu ñu amul fiiraange nag ñu yaafuus toog. di déglu rek. Mm. waaye bu fekkee ne dañ bëgg dem fo fa ñu di dem. Mm-hmm. dañ bëgg a eh, dëkk ak gaay firdawsil aala mm-hmm. niñ defoon démb noonu la ñuy def. jullit bi su fekkee ne moom jullit la mistake na. Mhm. loolu dañ koy understand. Mhm. dëgg su mooyee yàlla ñu woo ko si yar ak teggin waxtaan ak moom teg ko si yoonu siraatal mustaqim waaye boo àndee loo xam ne bokkul si gëtt mi loolu dañ war a jàpp sa loxo de. Mhm. ne li ngay def nii. baaxul yow boo ñu tekkul nag dañ war a wax ak suñ mbokk yi. ne leen kii si yoon bi mu nekk du yoon bu jub ñun ñi nga xam ne ñooy wax si diine bu ñu defut loolu nga xam ne yàlla am na yar bu muy teg suñ kaw. loolu laay teg waaw. am na solo am na solo jërëjëf Cheikh Moussa foog na yoon ngir wax ngeen ne wi dina xaajal. Mhm. si ay kuréel yu bëree bëri bëri. Mhm. niñ ko waxee juróom-ñaar fukk ak ñett. ak ñett waaw xam nga loolu bëri na. ñu wane na ndekete juróom-ñaar fukk ak ñaar yëpp a ngi biir safara. dafa niroo benn rek. benn rek moo ci mucc. moo ci mucc waaw. ban oustaz oustaz balaa ñu ñëw sax si loolu. waaw borom xam-xam yi bi nattee. Mm-hmm. la sax dañ gis ne ëpp na ko ëpp na juróom-ñaar fukki xaaj. ak dafa niroo yi ruusi la. bopp bi la lii laa bëggoon a wax. Ah, bopp bi dafa mel ni yii moom bopp bi la. waaye la ca fàqee ko dafa. ëpp am na ay bànqaas yu ko. mooy dëgg mooy dëgg. soo delloo ci téere bi nga xam ne al milal wa nihal bi Chahristani bind. <laughs> te mu benn bi mu ci ñaari mujallad beneen bi ci benn mujallad. <laughs> di nga gis yëpp lam ca def. ëpp na juróom juróom-ñaari fukki yoon yooyu. ak ña ak ñaar. alhamdulilah oustaz yaa ngi laaj léegi ñooñu ñan. benn bii di rëcc safara. benn bii nga xam ne. mooy rëcc. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. <laughs> Mhm. waxoon nañu ne gannaaw bi mu waxee ne xeetam dina teqale ko mu ne leen ñooña ñooy nekk ci la ma nekk tey maag samay saxaaba mm-hmm. oustaz yi la de ñooy nekk ci la ma nekk tey man ak samay saxaaba fi dina ko bam répétaat oustaz ñooñu yonent bi ne ñoy nekk ci lama ma nekk tey maag samay sahaba oustaz ñu commencé ci aqida allah ci pass pass pas oustaz ben sahaba yi taxaw ne yonent bi yàlla fu nekk la nekk dedet amu fi ku ko gis ci téré indi ne ne abubakar umar ousmane ali mos nañu taxaw ne yonent bi alayhi salatu wassalam borom bi ñuy wax mu ngi fu nekk waaye déedéet indiwu loola nekk ci alquran. am na lu gën a garaaloo Cheikh Moussa. bismillah. kuy fëgg dënnaam. waaw maa yàlla. allahu akbar saar am na fi wala amul fi. am na lu am na am loolu loolu kañ am na fi te am na ñenn ñu gëm ne tamit. Eh. yenent yàlla bi du xaatamul anbiya loolu tamit am na fi. ñu koy bàkkoo waaw. na yent yàlla bi du mooy mooy yenent yàlla bu mucc bi. ñu koy bàkkoo. dinañ ñëw foofu. waaw Moussa continue. la may bëgg wax fii mooy oustaz. waaw Cheikh El Hadj. Mhm. mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. aqida mhm. pas indi. Mhm. nekk biir makka. fukki at ak ñett di ko woote. ñu koy jam di ko dóor. di ko mbugal di mbugal ay saxaabaam. ah la fa nekk ci pas-pas booba day mooy borom bi azza wa jal mu ngi kawee ca kaw gàngu naayam waaye lépp lu doomi aadama di def nag moom yàlla xam na ko lépp lu mbindeef di def moom yàlla xam na ko dama lay gàttalal fi ustaz mhm. ci wàllu pas-pas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mosut a takk ay téere ko musuñ ko dégg de way gaay yi léegi nga top ya? fi ñu ne la waaw soo takkutee téere sa aajo du faju fan nga ko jëlee lolu du pass pass yenenbi bi alayhi salatu wassalam kon indi nga lu bees kon seetlu sa bop de cheikh moussa waaw gis nga wax ju nga wax dafa am solo barakallahu fi mooy soo bëggee bokk sey kurel gi di mucc safara waaw na nga tegu sa la bi alayhi salatu tegu woon ay lu am solo sooy jaamu yàlla. na seet na ko may dégg defee du noonu. waaw ay mm-hmm. léegi dinaa bëgg ñu dugg ci benn tomb bu am mm-hmm. solo Cheikh Moussa. Mm-hmm. ngir wax ngeen ne xeet bi dina bëri ay xaajaloo. waaw waaw. léegi Gambia fii rek suñ seetee xeet yu fi ne wala mbootaay yu fi nekk. di yëngatu si islam. bëri na lool. may dégg waaye dinaa bëgg ñu tànn benn tey ñu seet ndax ñooñu. ñu ngi si la yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekkoon mhm. wala nekkut mhm. mooy jamaa bu ñu wax jamaatu ahmadiya wala jamaatu alqadiyaniya mhm. sëñ sa ndax mos ngaa dégg ñi ahmadiya dégg naa leen bu baax a baax bismillah kuréel la boo xam ne dañ am ay pas-pas dañ am ay gëm-gëm ñun nag dañ ñoo dañ ñoo jox ay natteekaay. Hmm. ñun suñ diine. Hmm. nekkul ne diine la boo xam ne rek dangay jóg rek fabriquer def ko diine hmm. waaye diine la boo xam ne fa yàlla la jóge dafa am ay principal soo àndee dara ñu natt la ak diine boobu yow li ngay wax méngoo wut ak loolu da nga la koy delloo. te ñoom si loolu lañ nekk. tey ñooy ñaan. ñooñu. kuréel la boo xam ne fi mu fàqee ko mooy xaadiyaan dëkk bi xaadiyaan la tudd dëkk bi boppam xaadiyaan la tudd dëkk bi ku ko ku ko sos tamit dafa am ñu ko sosal pour mu def ko parce que dafa am english yi ñoo leen colonise woon te ñooñu si luñ doon dox mooy naka la ñuy def ba génne fi diine islaam waaye lislaam kenn du ko xeex nga fees ko soo ko defee rek yaa ci mujj yaay sanku lan la def léegi mooy ñu créer benn doomi aadama boo xam ne mu am lu muy wax ñenn ñi foog ne si diine bi la bokk nii la mbir mi jógee. fekk ñoo foo fekk ñoo ko naan dal si seen bàlleekaay mu naan fa be màndi. ñu ne ko lii ngay def lii ngay def. jullit yi kenn du leen xeex. waaye man ngaa nax gaa yi. lii moo leen tax a jóg. jéene leen si seen diine leen si seen diine. te benn ngànnaay du jóg dara du jóg. loolu moo yëkkati waa joo jëlee. mooy kan. mooy Mirza Ghulam Ahmed. sëñ Moussa yaa dégg lool. oustaz. Hmm. am na foo ba alaaji daanele. Hmm. dafa am solo. mooy. gis nga ñi nga xam ne ñoo forme waa ji. Hmm. muy Mirza Ghulam Ahmed alqaadiyaani dëkkoon ca dëkk wala boog juddoo ca dëkku qaadiyaan ca Punjaab. waa ñi nga xam ne ñooy noonu lislaam mm-hmm. du ñu dëñ di xeex lislaam mm-hmm. bi ñu nekkee ca India comme ni ñu ko baalaa ji waxee mm-hmm. ñu bëgg xeex lislaam lislaam doon diine boo xam ne ay peegam eh oustaz waxuma waxuma lislaamantu de waxuma lislaamantu waaye islaam bi fi yonent bi bàyyi yàlla ne na yonent bi ne na saxaaba yi ne nañ islaam boobu yëngal ko noonu de islam bujengel yengal ko yombut de da ngay wax nañu ko sank mm-hmm. mu ne mu ne doo ko muna a doo ko doo ko mun a jaamarloo ko mun a fiis dugu, soo ne rek mu danel gaay yi xam lolu te gaay yi dañu mus dañu mus mm-hmm. biñ xamé lolu ñu dem duggu ci ben ci ab ab julit ñi rek ko xamné ne wor kat la wor wor na l'islam wor rewam ñu jël ko comme niñ koy nyujelko rek légui ci jamono bi ñu jël ko défar ko ñu posone ko posoné ko mm-hmm. biñ ko posoné na mu mm-hmm. commencé di wax mm-hmm. xam nga julit bi oustaz kebo dafa bëgg lu baax gaay yi dañoo bëggoon lu baax té bé tay julit ñi dañu bëgg lu baax so ñëwé di leen wax né ni ngay amé tiyabu ni ngay duggé aljanna ni ngay ci safara ni la ko yalla indi ni la ko yonent bi indi dañ lay déglu bi loolu xewé ñu formé ko def ci mom poson mu ñu dugal ko ci biir biñ ko duggalé ci biir mu commencé di di di yak nak yo xamné ne ci yegg inshallah taala mm-hmm. way liñ bugg a wax fi moy bessa si ñuy waxé ñi nga xamné ño leen coloniser won di tubaab ya di britania nga xamné jamono boba, ño coloniser won bor boba dal english bi ñu demee ba ñu mënatuñu xam nañ ne ñii mënuñ leen a yëngal ñu dal di indi waajooju dugal ko ci biir. mais tey noonu la ñuy defee rek ñu nu jullit ñu ni jullit. Hmm. noonu la ñuy xeexee ba tey. su ñu gisee ne mën nañu di réewu jullit a ngi nii luñ ko dara. Hmm. dañuy jël doomi réew ya ca seen bopp. Hmm. ñu posone leen. ñu xeex seen diine ñu yàq seen réew. allahu akbar dafa niroo kooku mooy waajooju. dafa niroo su ma leen déggee daal. waaw diine ji ñuy wax diine Ahmadiyya. waaw. diine la joo xam ne noon yi ñoo ko sos. lu wér. foofu lañ bëgg a waxee. noon yee ko sos. waaw ngir yàq islaam islam may dëkk. ngir jénne doomi jullit yi. lu de may war nañu eewu foofu bu baax a baax a baax. Mm-hmm. te seetal naxaate bi mu def ba mu ñëwee. Mm-hmm. moom Gulaam Ahmad. Mm-hmm. fu mu njëkk a commencé mbiram mu ne moom daa iya islaamiya la. may dëkk comme yow ceebu caam comme yow Moussa Moussa. ñëw man dam man damay woo damay jàngal ñi ñi seen diine mm-hmm. mu dem ba xam ne léegi ñi ñi sakkan nañ ñi ko topp mm-hmm. mu cieñ mm-hmm. mu ne leen man maay beesal yoni muhammad alayhi salaatu wasalaam ñi ñi wax joji tamit neex na si nopp nit ñi ñi di ko topp di ko top mi am mbolo ba mu amee mbooloo xam ne léegi tànk bi dëgër na rek mu ne leen man maay mahdil muntazar eh? waaw allahu akbar isa mi ngeen di dégg ne dina ñëw mhm. man mii la seetal de si ay step la moo ñëwee ba mu demee dem dem ba xam ne léegi ñi ñaa ngi koy topp mu ne leen xanaa xamu leen ne man yenenti yàlla laa boo xam ne sama yenenti yàlla yaa bi moo raw bu muhammad alayhi salaatu wasalaam nii la ko defee step by step la ñëwee step by step jéego yi la jël jéego yi la jël ba mu ñëw ne moom yenenti yàlla waaye daf leen anna nubuwatahu a'la wa arqa min nubuwati sayyidina muhammad sallallahu alaihi wa sallam nii la ko waxee ba mu àggee foofu nag fa la àggee fi mu war a àgg waaw nit ñi xam ne kii boroom xam-xam di jóg si dëkk bu mu dëkk nit ñi xam ne kii bukki la ne dafa sàngoo darum xar mm-hmm. Mm-hmm. nii la jógee allahu akbar eh, li may yokk fii xam nga balaa wax nañu ci biir wax ne. waaw dafa woote wu ne lam indi wala boog mahdi la wala yonenti yàlla. <laughs> oustaz yonenti yàlla dafa am day day am famille. Mm-hmm. dafa am fu muy génnee. Mm-hmm. yonenti yàlla. Mm-hmm. am baay day am dañu am yaay. dañuy xam cosaanam fan la. dañuy xam fameem fan la. yonent bi soo ko compté. wallaahi daf lay yóbbu ba ci Ismaïl. te muy dëkk daf lay yóbbu ci Ismaïl yéen teel a Ismaïl. Mm-hmm. waaye nañ nañ xool Ghulam Ahmad mii Mirza Ghulam Ahmad mii fan la jógee. am na solo. fan la jógee. Mm-hmm. Mirza Ghulam Ahmad mii baayam Ghulam Murtada la mm-hmm. Murtada la tudd. yaayam mu ngi tuddoon Jiraax Bibi. Jiraax Bibi. la tudd. moom kaay déglu de ci téeréem bi ñuy wax damimul waxi mu ne. léegoo léeg mu ne. Mhm. moom mu ngi fàqee ko ci mangool benn usra. Mhm, benn famille. nekkoon ca perlas mhm. nee na moom ci ñooñu la bokk. lii mu ngi ko wax ci téeréem boobu de damimul waay. ñu dema dem ba ci kanam mu ne déedéet moom sax ci waa fursu la bokk. Eh? waaw. mu ne ci waa force la bokk de déglu de. moom dafa ñoroon ñaari làmmiñ la. waaye jeexagut yow déglu ma. ah xareegu ah, ah, ma bismillah xareegu ma. ñu dema ba ci kanam mu ne di cosaanam ca siin la sini ya ca ya. China. China. moom kenn. moom kenn pareegut. <laughs> Ah, ci yonent bi ci Fatima la bàyyeekoo. allahu beneen yoon sax mu ne Samarkand la dëkk Samarkand. beneen ba ca gën a doy waar mu ne moom sax ci famille banu Isxaaq yéen yàlla Isxaaq. ci famille kooku la bokk. oustaz xoolal wax ju bëri ji. Ah, Cheikh moom ñaata làmmeñ. bëri na. moom kenn. moom kenn. ah lii rek war naa. waaw oh. kii du nit ku baax. waaw di nekk nit yi koo xam ne yàlla moo ko yónni. loolu mooy dëgg. ah loolu mooy dëgg. wallaahi. Cheikh Seydou Hadj Soufiane boobu noonu. waaw. حديث هرقل واو عظيم الروم بمدون لاج واو أكنتم تتهمون هو والله ها لا نكون ديكو تومال سي ينين صحيح نينا كو ديدت ديدت حقيقة والله ديدت نفسك الله أكبر نفسك سيدال كينياتا لا برينا ها برينا سبحان برينا واو بسم الله أستاذ لما بغوا في موي واو أبي أنت يالا دو برينا ديدت ma ko nit ku baax sax du bëri làmmiñ loolu mooy dëkkanduma ko yàlla koo xam ne ku yàlla yónni allahu kon su boobaa jullit boo xam ne yaa ngi ñuy déglu fi fu ñu nekk ne ak mm. koo xam ne di ñu seetaan yi wala mm. foo manti nekk ci àddina bi na nga yëg ne mm-hmm. yonent yàlla bi nga xam ne moom la yàlla yónni digg dëgg dëgg dëgg dëgg mm-hmm. kooku mm-hmm. yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam keneen ku mbubboo nag ab yonant yàlla yaa mm. nga mbubboo diine. Mhm. di nga weeru de. wallaahi di nga weeru. di nga weeru. di nga mhm. weeru. di nga te balaa ji wax na fi lu am solo eh, eh, eh, balaa muy ñëw. Mhm. bëccëg. waaw dara kàmm nga weer. waaw waaw Cheikh yéen a ngi may fàttali. saxaaba boobu ñëwoon seet si yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam xibaaram. ba mu ñëwee mu ne dama ba ma ko ne jàkk. wallaahi si laa xam ne xar kanamam. wallaahi du xar kami xar kami fenn. may dëgg seetal rek Wah sih kii wax ju wax ji moom kenn moom kenn samarkand furs mungkin moom kenn si fatima si ishaq audu billah bari na bari na yal nañ yàlla jàppale cheikh jërëjëf jëf ñu ngeen kontaan trop si kau barakallahu am nga la yokk balaa ñoo am li may yokk mooy ñun léegi mhm. am lu waaw suñu rew moñu jaral lu nekk mooy Gambia. allahu akbar lu ibnu Badis doon wax. a mm. Jazaayir. maa ngi nii di ko wax fii. nahnu naisu lil islami wa li Gambia. allahu lu ñu tax a mooy suñ diine ak suñ réew. liñ bëgg mooy Gambia yëpp dugg àjjana yàlla na ko yàlla def. lii mooy suñ mébét ñun. bëgguñ kenn des. suñ maam yi nekk si bàmmeel bi suñ jëf yu baax yi àgg si ñoom ñu kontaan si. Mm-hmm. moo tax waaye nit ñi buñ foog ne. Mm-hmm. wax si ñii. Mhm. tey la commencé. déedéet. foog bi xam loolu ne wax si ñii. Mhm. maama ñu si jiitu. waaw dëkk. ba ñëwee si dëkk bi 1960. jëw 1971. Mhm. si diir boobu noonu borom xam-xam yi ñu fekk si dëkk bi. ñëpp a jóg xaw seen kanam. ñu mel ni ñan. ñu mel ni Alhaji Mamad Fall Fadera. mu bind téere te ci yang ne ma ji la dëkk mu bind si téere tuddee ko. تحذير أمة المحمدية عن جماعة الأحمدية الله أكبر مويلا fekk judooma yow judoowu loo Moussa judoowu dëgg firil ma baat boobu mu ne maa ngi bàyyiloo xel xeetu Mouhamad maa ngi leen a bàyyiloo xel si mbootaay bu ñuy ooyee Ahmadiya Qadianiya waaw na ngeen bàyyi seen xel da waaw Fadera ma ko wax mu bind si téere bu am solo wane seen aqida seen pas-pas yu bon yépp liñ gëm mu ne leen ne Gambia fii nit ñi du leen topp ku leen topp rek dafa xamut. te loolu li wax loolu mooy dëgg. koo gis mu topp gars yi ñaari mbir rek la. Mhm. ñàkk xam mbaa alal. moo tax ngay topp gars yi beneen borom xam-xam bi nekk jaar jaara. Mhm. jaabi Cheikh jaabi mu dégg mu dégg mu dégg na kii jénnee na téere waaw di agence Ahmadiyya rek mu bindal ko ab mu ne ko inna nubuwata lam takun bi riyadati alhaqi fa kayfa zuuru gambien moo wàlle de foog ñu bàyyi suñ xel mm-hmm. buñ foog ne Omar jiite moo ko fi wa mbaa Ba Ceebo moo ko fi wax mbaa yow la mbaa Omar Danso mm-hmm. mbaa Alaaji Sall mbaa mm-hmm. Moussa Diallo déedéet Alaay Mamadou Fall Fadera moo leen laal keneen jóge jaara borom xam-xam bu mag jaabi la sant mu mu yónni woy bi ne ko su fekkee ne yenent yàlla nit ki du mun a jaamu yàlla ba doon yenent yàlla mm. fa kay fa zuuru ana kàcc nooy mën a kàcc ba am ba nekk yonent yàlla mu ne wala qad wudditu jidaalahum fi saatin law niltuhu mm-hmm. kasafa dalaama nuuru allahu akbar mu ne dama jóg pour bugg a xeex ak gaa yi nga mm-hmm. am yéenay wax nii de mm-hmm. pour bëgg a xeex ak gaa taxaw seen kanam pour ñu jóge suñ dëkk ma benn lëndëm bu ñuul kuk leer ñëw daaneel ko leer boobu mooy alxaaj mamal faal fadel macha allah mu ne ko wala xat kafaani xarbahum laysul waga wa aqarra ayni al aylamu sifsiru macha allah waaw xam nga kan mooma day su ñoom <laughs> benn eh, benn eh, eh, no nu ma koy waxee sax mm-hmm. benn gaynde bu ponkal mm-hmm. moo ñëw ne ma yow demal toog ma xeex gaay ما شاء الله ما ين فديرا لله دروك يا فديرا لا انت اذا انت العالم النهرير كل ما بغا وفوف نون موي ني خيخ بي مجالسي نيو الله ما شاء بروم دار جزاهم الله عنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء بري سي دك بي alhaaji bandin kadde rahmatullahi alayhi mu jox ma téeréem dañ jóge woon murtani ñu ñëw dem nuyu ko ne kilifa la si dëkk bi lu ñu def si dëkk bi ñëpp xam nañ ko ñu ànd maag samay xarit mu may ma téere bi te moom tamit wane na foofu ne ñii si yoon bu nekk du yoon bu baax kon léegi wama daa baada al xaq illa dalal oustaz mema alaji may tuuti waaw dafa am foo laal fu am solo nee na gambia suñu diine ak suñu réew waaw wala boog ñu ne suñu diine gannaaw loolu suñu réew. waaw mhm. saas wax jooju dafa rëy de. Mhm. loolu may kilifa yii ñim ñu tuddal sànq ñu mën a xam ne mënuñoo jaamu yàlla ci feneen fu dul seen réew. Mhm. aljanna mënuñ ko utee feneen fu dul seen réew kon kon lay lépp lu yàq seen réew lépp lu yàq seen réew dañ koy taxaw leeral ko ba mu leer. wallaahi wallaahi. dañuy taxaw baaraas loolu oustaz looloo taxoon ñu am xir ñoo ñu am xiir ah ñu ñëw ñu bind ay téere waaye du ñoom du ñoom rekk de am na keneen ku nekkoon sifo sifoo Kanté. waaw moom laa moom mooy moo tudd alaaj Mandin Kanté. Jamil waaw. ñii yëpp tamit taxaw taxawaay bu rafet boobu. <laughs> waaye doonoon ay borom xam-xam ci jamono booba kon borom xam-xam oustaz warta yaafus de. abadan borom xam-xam. su yaafuse marché bi am su yaafuse marché bi mm-hmm. kon di nga ci dégg a benn dégg-dégg mm-hmm. bu bëgg a dem ci kanam. Mm-hmm. da ngay jox say borom xam-xam gëdd. da leen di jox seen àq. barakallahu lak wallahi wallahi wallahi Cheikh jërëjëf jëf eh, yàlla leen yàlla jàppale. amiin eh, xam naa beneen tomb bu ñu mooy xam ngeen diine ju nekk. am na ay góor. waaw yu koy taxawoo. dañ bëgg ngeen nettali ñu ñenn. waaw si ña nga xam ne ñoo taxawee mbiri diine bi ñuy wax Ahmadiyya diino. waaw oustaz gis nga dama bëggoon tuuti rek. balaa ñuy ñëw ci loolu. Gambia bi ñuy waxee. waaw. ñii wax nga ñu biñ fi duggee. waaw muy Ahmadiyya ñi. kon nekkuñu woon nekkuñ fi woon. déedéet nekkuñ fi woon. dañuy waxante dëgg oustaz nekkuñ fi woon. kon ci jamono président bi fi newoon balaa ki fi jóge di fi nekk muy Jawara ja tay mam lañ fi ñëw. kon suñu maam yi fi nekkoon ci kaw lañ lañ nekk. si ban diine ci ban diine lañ ñëwoon. diine islam. islaam diine islam bu wér kak lañ nekk. wallahi waaw man dina la waatloo ci yàlla ne. Hmm. ñooñu biñ fi ñëwee kilifa yiñ fi fekk ci diine ñooñu ci alxuraan ak sunna rek moo leen ñoroon. wallahi. allahu akbar alxuraan ak sunna moo leen ñoroon. naka nak tay ngay deg ko xamne dañ lay waxe alquran ak sunna nga melni yow de nga gumbu wala de nga de nga tëx sa xol dafa febar motax ñu bëgg waxe oustaz ne mhm. gambia bi dañ wara xamne gambia naam di nga deg sax ku nek di la wax ne mami ñoko ñaanal demb waye ha diine tax de maam yooyu soo gisee ñu mën a ñaanal Gambia diine tax. waaw te ci diine lañ tënku woon ñu mën a ñaan yàlla. Mm-hmm. kon ñu ne dañu tënku ci diine di mm-hmm. suñ buggee baax. Mm-hmm. faaw ñu tënku ci diine. oustaz. wallaahi wax nga dëgg. dinañ wax de. Mm-hmm. waaw kay. <laughs> dinañ wax de nit ñu jéggal nag waaye dinañ wax de. Eh, dafa jot. suñ buggee ñu baax Gambia baax. Mm-hmm. mbaax bi des fi. Mm-hmm. dañuy tënku ci diine ndaxte kilifa yi démb. dañoo tënku woon ci diine. wallaahi moo tax ñuy wax ne. Gambia bi dañu war a toppatoo seen diine. addina nag su la jaralee nga jaay sa diine am nga problème. te tey ñu bari addinaa leen di yóbbaale. te alaaji wax na fi lu am solo jazaahullahu xeyran mu ne ñaar ñii ñooy ñii topp ahmadiyan yi benn dafa xamul kon kooku dafa war a dem ñu xamal ko de waaw waaw soo xamutee demal ñu xamal programme bi loolu moo ko moo ko tax a jóg ko tax pour ñu xamal la mm, waaw ñaareel bi mooy alal te alal oustaz lor nañu bëri de alal waye la ci gëna a doy warte barki demb rek benn waxambaane mu makoy koy wax mhm. mu ne ma ñom seen nit su dee te ñu joxon ko dara dañuy di yépp dem seen yoon <laughs> waye kon lu tax ngay wëss taay time lu tax ñom alal biñ lay jël mu lay mu lay lo di nga ci puuk réew loo xam ne soo génnee àddina ñu ko subhanallah kon ana njëriñ bi sa njaboot gëdel zéro war zéro ana njëriñ bi xam nga mhm. seigne Moussa fi ngay xamne ñi du diine boo xam ne dafa dëggu ñun maam yi ñu ngi fi woon am ñu gëm lii am ñu gëm lii waaye fu ñuy fu fu fu ñuy naanee benn la alkitaab wa la mm-hmm. donte na am nañ ay ay ay yu ndaw seen diggante mm-hmm. waaye ndax loolu tax na benn nit bu dee si kuréel bii ñii duñ ko jullee déedéet waaye ñii dañ ñëw dangay gis kenn si ñoom sax moom mu nekk xaadiyaan baayam nekk jullit baayam bu bu dee muy yërëm baayam naan de ndeysaan dafa dee yéeféer bi dee na. ñoom bokk na si seen pas-pas bu gën a law mooy ne yow boo nekkuloo xaadiyaan rek boo dee safara ngay dem ñun ñëpp bu ñu dee safara lañ dem si seen kanam. ñoom ci seen gis noonu la ñuy gisee. waaw noonu la ñuy gisee. léegi léegi su fekkee ne mbir mi noonu la mel lii rek waa Gambie mën nañoo understand lan mooy dëgg. ki nga xamne yow da nga ñew fi ni hmm. nga ne kep ko xamne nekul qadian bu de rek safara lay dem te gis nga tapale bu ñuy def sax si seen birum sey ñom mun nañu ñew ñu nax la ñu tak sa dom waaye yow domu sa am seen dom suñ xamé ne yow do qadian gambien bi dafa wara xam li yeb gam ñu na gambé mo ñu jaral lu nekk hmm. foog gambé mo ñu xamal gambé mo ñu dundal Gambia moo tax fu ñu dem si àdduna rek ñu ekkati suñ boppa kon Gambia moo ñu jaral lu nekka ok sas ma ñëwaat ci laaj bi. waaw yaa ngi doon wax ñenn ci seen nit yu gën a yu gën a fis ñu gën a. waaw waaw waaye bëgg naa balaa nga dem foofu. waaw parce ñun pour ñu. ma ko Gambia bi pour nga mun waxtaan ak moom. waaw mi understand. waaw sa kantuma si mbiri diine. waaw daf dee jëfe tuuti. parce utee bi nekk suñ diggante ak ñii di mm-hmm. Ahmadiyya mm-hmm. ñeneen ñi si julli di lay wax de waaw waaw dañoo gisee ne utee bi mm-hmm. dafa niroo comme Imam Malik nu mu madhab ak Abu Hanifa wax lii Imam Malik wax lii Shafi wax lii Ahmad wax lii su man dama dégg ne ñii seen utee ak ñun suñ utee ak ñii bokkut sori na sore na torop soo bëgg naa ngeen leeral pont buntu boobu noonu yow kan dégg nga sama wax kon uh-huh. waaye xam nga hmm. ki gëmoon imam malik ak ki gëm saafi yi hmm. ndax waa saafi yi du julli gannaaw imam malik si su dëkk bi dafay julli ndax bu dee hmm. du ko jullee dina ko jullee ndax duñ sëyante seeni biir dinañ sëy waaye ñoom bu ñëwee ne loolu yëpp daganut kon ñu nag ñooñu nirowuñ foofu laa lay wax dégg foofu de lii moo tax uh-huh. ñu war a am dégg-dégg bi ne ñee nga xam ne lañuy ñuy ji la ña ñuy jéem a méngale. Mm-hmm. muy madahib yi. Mm-hmm. muy madhab imam Malik Shafii ñooñu ay jullit lañu woon. baaraka mm-hmm. ñooñu dañoo gëmoon yàlla. gëm yonent bi. waaye ñii gëmuñu waaw mooy. ixtiraamu raay al dañ koy wax. waaw waaw yow soo uteeg niw diw xelaat da war jox gëdd xalaatam nga respect ko loolu tamit am na ñoo xam ne dañ gis na ñoom dañ civilisé dañ understand lii mooy seen yoon yow xamadiya bi wala yow jullit bi nga ne kii xamadiya soo xamadiya bi lu muy wax respect ko moom tamit yow looy wax respect ko ñu mën a dugg toog ci jàmm déedéet gis xam nga lan mooy respect hmm. gambien yi respect nañ ñëpp hmm. waaye jullit yi respect nañ ñëpp tamit. Mm-hmm. yow soo ñëwee. Mm-hmm. bokkoo si ñoom nga mbubboo mbubbu lislaam di wax si lislaam loo xam ne ñun yàlla waxoon nañ ñu démb de al yawma akmaltu lakum diinakum. Mm-hmm. diina bi mat na sëkk. yow nga andi fa leneen yokku ko ndax respect nga ñu. kon ñàkk respect bi kan moo ko andi. yow mii <laughs> yow yaa ko njëkkee kon loolu foofu du bunt boo xam ne gars yi nañ fa mën a duggee moom. du bunt boo xam ne. loolu laa yokk ci dara. waaw nga ñiy wax loolu. Hmm. dañoo jëfandikoo seen xel kese. Hmm. te islam xel kese. te islam du xel kese. Hmm. islam day dimbali koo xel. waaye du jël xel kese. gis nga bi ñu jëlee seen xel kese. waaw te seen xel dafa gàtt. Mm-hmm. doomi aadama xelam dafa gàtt. demul fenn. Mm-hmm. ñun ñi fi nekk yëpp dañoo wute ci ay xelaat. dañoo wute ci ay xel. Mm-hmm. su boobaa ki lay wax ne non non respectal xelaatam mu respect sa xelaat. danga foog ne kooku def ko wax hasard noonu déedéet dañ ko nàmpal kooku dañ ko nampal nampalu istimaar nampalu ingilise. lañ ko nàmpal lañ ko nàmpal kon kooku su gisee ku bàyyeekoo ca moom wala ku niroog moom daf koy defaan. Mm-hmm. daf koy defense. du nangu mu am ak mu am problème. wax nga loolu moo tax suñ gàmbee ñu am problème bii. Mm-hmm. soo waxee. Mm-hmm. soo waxee. nga ne nga laal Ahmed yani keneen taxaw fële ne la di respect ko ndaxte lu muy wax lu baax la xam nga lu tax. angale bi fi ñëwoon coloniser ko. bàyyeeku lu bari bëri bari bëri. angale boobu moo coloniser woon India fa Ghulam Mirza Ahmad nekkoon. te ba tey. ay ay ay xe kiyam bu mag maktabam office am bu mag. fa nekk nekkul Saoudi nekkul feneen. bu waaye ma nga Angleterre. mooy dëgg mooy dëgg. yal nañu yàlla jàppale. amiin yaa rabbal aalamiin. bisimilah waaw léegi mën nañoo toxu si suñu laajte boobu ñu laajte. waaw non waaye balaa ngaa tudd. waaw dafa am lu lënt. waaw. si seeni mbir. Mm. foofu dañ ko war a reeral torop torop. parce que fii xam nga li ngeen doon wax ni Gambia fii soo leen waxee dañoo wax ne waaw xam nga nation building bi ñii dañ si dee participer torop cause am nañ ay school am nañ ay lopitaan loolu lañ la laaw ñu fàtte ne. Mm-hmm. arab yi jóge nañ Saudia sampa fi ay lopitaan ñu fàtte ne ñi ñu jóge nañ Kuwait am fi ay jàkka du leen defal lu nekk di sponsor xale yi university su fekkee ne sax yow. sa sa cause bi fifty thousand dalasi arab yi ñu ngi la ko sponsor ñun ñëpp foofu la ñoo liggéey yéen xam ngeen loolu. Mm. ñu ñoo sponsor Gambie fii di bëri nañ torop torop sax maa yu ñoo tabax waaye ñi ñu dumoo yu loolu. lu gars yi tabax benn school ñaari school rek la loolu nit ñi di gis te loolu school yooyu noonu soo demoon si school yi arabe yi nga xam ne nit ñi dañ fa dee jàng English at yëpp soo ko gis ay 300 la 700 high school ndax ñoom seen bos loolu la nit ñi dañ war a am leerlu si loolu tamit. ñan ñoo ñëw pour dimbale doomi aadama yi buñ bëggee wax dëgg. ak ñan ñoo ñëw pour business. ak ak ñan ñoo ñëw business. Ah. boo te jëloon boo jëloon rek nga bàyyi ñoom Africa Muslim Agency ak ñoom Munazama yëpp demal rek nga jël oustaz Ali Thiam nga def ko référence. hafizahullah at bu nekk ñaata xar lay tasaare fii nii. bari na ah waa nit ñi duñ wax foofu de. ah gars yi nii ah, Ali Thiam moom nekkul si nation building. kuy ñëw am pël bu jóge fale amul amul lu muy tabaskee joolaa jóge fale amul lu moo tabaske ab caameen bu jóge fale amul jomul tabaske aliou caam na nelam kaay jël tabaski bi free gift ba jur ba juróomi téeméeri xar nit ñi gis na loolu du neesoon développement subhanallah ndax ndax nit ñi màndu nañ Euh, foofu daal dama bëgg ngeen teg si seen baaraam bu baax te ngeen leeral ko gàmbien yi ne. Mhm. ñi nga xam ne ñooy yëngu si sunna ñi nga xam ne ñooy yëngu si diina bu wér ñu ngi def seen kem kàttan ñu ngi béy seen waar di andi lu nekk si dëkk bi fii nii. pour dëkk bi dem kanam. pour dëkk bi dem si kanam kon ñun ñoo nekk si nation building. oustaz gis nga fi mu laa bëgg a ñëw. Mhm. su ñu tuddee nation building mooy lan. Mhm. waaye du ay tabax kese. loolu képp ko am dégg-dégg boobu yow amoo dégg-dégg bu correct. déedéet déedéet nation building nañ tabax suñu réew dafa yaatu. dafa yaatu dafa yaatu. loolu même su fekkee ne moom ci biir waaye du loolu rek lañ aajowoo. Mm-hmm, mm-hmm. nañ tabax nation building dafa aajowoo nga am diine nga am jikko oustaz ñii ban école arabe lañ fi tabax. gisuma ko de. ah gisuma amu fi ban tahfiz lañ fi def di mokkal nit ñi di mokkal alquran. gisuma ko. waaw kooku diine def ko jox def ko soxal. diine soxalu ko. am na leneen lu ne si diine soxalu ko de lii nit ñi dañ ko war a xam. allah akbar jërëjëf. lopitaan ak school te yooyu yëpp dañoo fay. ma ne nguur gi xanaa ma ne xanaa nguur gi amuñ fi lopitaan. am nañ fi xanaa nguur gi amuñ fi ay école. am nañ ko xanaa ay private school amu fi. am nañ loolu loolu nit ko am dégg-dégg doo ko wax. wallahi nit ko am. dégg-dégg doo wax foofu laa bëgg ngeen tegal seen baaraam foofu. doo ko waaw. leer na sëñ Moussa foog naa képp koo xam ne yaa ngi déglu bunt bi waruloo fa amati lu lay jaxase. Mm. ñu dellu si laaj bañ laajte woon. bismillah ana ñoom seen góor ñu taxaw seen diine. gis nga ki ñu njëkkee mooy seen Mirza Ghulam mi nga xam ne sànq wax nañ leen baayam ak yaayam. Mm. fan lañ fàqee mm. nga moom bi mu génnee àddina bi mu dee ca fam dee yàlla nattu ko lam ko nattu. Mm-hmm. yàlla nattu ko lam ko nattu ci ko na meloon mhm. benn waay bu tuddoon Muhammad ibn Ali mhm. wa xooja Kamalu Diin mhm. moom la moo nekkoon seen amir moo jiite woon mbir ma gannaaw bi Mirza Ghulam Ahmad jógee foofu kooku ba fa jógee am na keneen tamit ku ñëw wala boog ñu njëkkee ci nuuru diin boobu. waaw nuuru diin mhm. mooy seen xalifa bu njëkk. waaw eh, déglul fii. Mhm. borom téere bi mu ngi wax lu neex. Mhm. mu ne nuuru diin mii. moo nekkoon xalifa bu njëkk boo xam ne tubaab yi dañoo jiloon taajul xilaafa. mooy wax ju neex. taajul xilaafa. ñu teg ko ci boppam bi taajul xilaafa oustaz mooy dañoo jëloon. Eh, xaw ma naka la ko olof di waxee buur yi buur yi buur yi baxana buur yooyu ñu tegal ko ko ci boppam bi tubaab yi ñoom ñoo defoon loola. tubaab yi waaw. ña woon India coloniser leen. Mhm. yaa ngi dëgg baax. Mhm. ñoo jël mbaxana mu tegal ko ko gars yi nag topp ko ndaxte dañ am motif dañ am ay ay mbir ci biir te yooyu pareewoon. te faw ñun ñu topp ko. Mhm. ndax na mbir ma jeexagul mom mhm. bam fa nak ki muhammad ali xooja mi muhammad ali xooja mi bim fa mhm. benen muhammad ali Amir qadiyan mu nekkon amirul qadiyan mhm. momit mu dal di ñew nonu lañ topalante ba saa amir bu gëna a mag ma nga to london london jamono ju nekk ni mu nga toog ni الله اكبر الله اكبر muy lu doy waar loolu loolu loolu yéeme na yéeme na trop sax xam nga ne loolu yéeme na man maa ngi dégg benn borom xam nga ñu koy wax taajul hilaal yi taqiyu diini hilaal mu ne ba ma gëstoo lislaam ba pare dama gis ne ngay woote lislaam te mënuloo arab nafxatun fi ramadi la wax allahu akbar daa mel ni rek ku dem si ab doomi taal di ko uf pour mu am si safara kon koku lim lay wax nonu moy ne diine ji doo ko understand doo ko mën a dégg bu wér te fek yow manu arab cheikh lu gën a waaw yàlla mané walan tarda anka alyahudu walan nasara tattabi'a millatahum millatahum ملته al الآية mu ngi wax yenen bi sallallahu alayhi wasallam ne yahudi duñ la mos di nangul nasara yi duñ la mos di nangul moog foog nga topp seen i diin léegi su ñëwee ñu ne jamaatu ahmadiya mhm. seen ami bi mu ngi toog biir London mhm. ñu ubbil ko fa office mi doxal nam ko neexee ndax kooku mu ngi si diine Muhammad abadan kallaa wala abadan kallaa wala ku ci àdduna sori na bon léegi war a ñëw ne bon tubaab yaa ngi dimbale diine bon ah déedéet du ñooñu ñooñu moom voilà. subhanallah oustaz dafa am benn wax. Hmm. boo fi wax sànq. Hmm. muy aaya bi ñu fàttali sànq. lan lañ ci war a déggee. Hmm. mooy dëgg dëgg dëgg dëgg su fekkoon ne diinee leen ñor. bi ñu fa ubbi place duñ fa seen maktaba bu gën a rëy yi tamit Israël la nekk. bu ko waxati. xay ñoom ñoo ko def seen biir téere yi de mu fa dee. borom xam-xam yi wax ko. ñoom bokk nañ ci ñuy gën a dooleel ci ñu gën a tax Ahmadiyya di tasaaroo ci réewi arab ci ci ci réewi arab yooyu. ndaxte Israël la ñuy jóge ñu ngi fa am office bu mag ñuy tasaare seen biir te aaya bi wax nga ñu ko sànq. wallaahi wala tarda anka al yahud wala nasara waaw kon lan la fa julli di uti. Ah, lan la fa julli di uti. su ah, fekkee ne bëgg naa diine déedéet ñoom kaañ boo gisee ñu tànn Angleterre dem toog foofu noonu. Mérésa si boppam moo leen wax loolu. Uh-huh. moom bokk na si pas-pasam. waaw ne yàllam anglais lay làkk. wax nga dëgg. waaw waaw. ne yàlla buy wàccee quraanam moom moom quraanam waxuma suñ quraan de. bu ñu koy wàccee si english la ABC. di EF ji yooyu lañ si loolu la ma wàcce. <laughs> sax soo loolu tax foog mu ñu seen capital dem toog foofu noonu. because ñoom loolu mooy seen loolu mooy seen pas-pas loolu mooy seen believing te seen ma seen eh, eh, seen sookool yenent yàlla bi moo leen wax ne yàlla bu may wa buy waxtaan ak man si english la lay waxtaan ak man. kon léegi foog mu dem tok Angleterre kañ sëñ bi. non gis nga mbir mi. <laughs> leer na la ngeen waxoon si njëlbeeni waxtaan waaw moy ne ñi dañ leen nandal. waaw nandal waaw. ñu bëgg a tasaare seen i ak seen i ya na nañ yàlla sam sàmm amin amiin amiin rabbal alamin. xam lu de si waxtu bi legi tay de. Mhm. dina bëgg ñu dem ci al mu'taqadat waaw indaw. na ñu seen pas-pas. waaw bismillah. dina am solo propre Gambien mi xam lan moy pas-pas Ahmadiyya. ñom lan moy seen gëm-gëm xamna bari na nak torop nañ bëgg ñu jël ko benn benn yo wax ci foog ñu am lo bismillah bismillah cheikh bokk na sa seen pass pass ne yenent yàlla bi du khatamun nabiyyin moy lan ne yenent yàlla bi du moy yenent yàlla bu mujju bi ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum ولكن رسول الله وخاتم النبيين nabiyin ñoom ام سين فريني بوب موي لان dégg te dama lay wax rek si suñu wolof bi ñuy làkk nii mbaa soose nii. gis nga benn baat dina ñëw mu am ay firin waaye nu mu ñëwee si wax moo koy firi. wax nga dëgg mbaa borom wax bi si boppam moo la koy firil mu leer. wax foofu laa bëgg a amee. Mm-hmm. ñoom xaatam dañ gis ne rek ring la yeneen yàlla bi ring la. jaar jaaru la jeex la. te yent yàlla bi moom si boppam moo firi aaya bi ana la aaqibu laa nabiya baadi borom wax ji yàlla si alxuraan si yent yàlla bi la ko wàccee moom ba mu waxee aaya bi ba pare te lu tax lu taxoon mu wax aaya aaya boobu noonu fekk ba ba mu ko doon wax amul benn doomam bu dund doomam bu góor bu dund moom yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne leen du bàyyi kenn si góor yi waaye dafa am lu jugoon yàlla loolu la bëggoon a leeral mm-hmm. nit ñi demoon nañ ba gis ne dafa war a doon yeneen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla di dàq loolu parce que Zayd dafa am soxla bi mu bàyyi woon yeneen yàlla bi yàlla ne ko bu ko bàyyi bu ko bàyyi rek yow yow yaa ko war a tag falammaa qadaa minhum minhu Zayd wataran zawwajnaakahaa hmm. dégg nga sëy boobu si yàlla la jógee hmm. nit ñi commencé di bëgg a ŋàññi yeneen yàlla bi ne doo jabaru doomam lay takk yàlla leeral mbir mi ba ñëw ne mooy yenent yàlla bu mujj bi yenent yàlla bi ba mu ko waxee mu ne leen ay xadis yu leer la si wax. oustaz day nax boppam. day nax boppam. Mhm. ndaxte nañ pare na yàlla préparé la yonent bi alayhi salaatu wa salaam. Mhm. mat ci wax mat ci jëf mat ci doxalin. mat ci taxaway mat ci togay mat ci boor yépp loolu amul ben goor bu koy maté ci kaw suuf amu fi allahu akbar lolu bi adina tukki ken du ko am loolu moo tax ci sen bop ñu ne bi sallallahu alaihi wasallam su dundoon jamono ji dina don amé ben diko di suñu problème yep mu régler ñuko digënté timis ak wallahi صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه كو كو دوما كنن دوما ملني مو دي نوي روي تي موم نا لولو تا شيخ موسى سي سيني واخ واو ني جيس ني موم بوروم لامي نيو بري لا موي دغ واخا دغ غير دا فاي سان صحيح واو yàlla yónniwul ko. dëgg bàyyi na ma amul kenn koo xam ne dina mun a indi. <laughs> benn fen bu jógee suñ si waat. lu wér lu noonam yi sax. ñoo ko seede ñoo ko seede. saxe saxe allahu akbar saxe. Ah, xadis bu wax xadisu uh, su uh, boobu noonu. waaw daa Ruum. waaw waaw. buur bi mu ne la ndax xamee woon gën ko fen. waaw mu ne laan déedéet. fen moom mosuñ ko koo xamee. waaw mu ne ah bon du mun a bàyyi fen diggante moom ak nit ñi di fenal yàlla. wallaahi. seetal loolu rek Cheikh Moussa. wallaahi loolu tax lu nga wax ni. lu uh-huh. war a xel la. Uh-huh. nit gis su tey mu ne moom yonent yàlla. Uh-huh. dinañ gis ay fautes yu bëri si moom. mooy dëgg ngir lan indiwul dëgg. indiwul saxee. bay na maa yonent bi alayhi salaatu wa salaam doo indi benn faute ben saxee doo ko mën a benn doo ko mën a andi. subhanallah benn benn faute sax ko mën loolu moo tax. Mirza Ghulam Ahmad mu fees te ba ak ay folt. ay folt ma jox la benn misaal. waaw bi mu commencé dafa waxoon gars ne dina leen bindal juróom fukki téere di leen fukki mujallad fifty mujallad gars yi ñoo mën caaxaan rek. Mhm. dañoo xam ni ñu lekkee xaalis. Mhm. moo tax Ba Ladi waxoon nañu ko sànq. Mhm. bi mbooloo mi bëri. mu dal gis boppam. ne dina dina leen bindal fifty fifty mujallad. mu bind benn mujallad ñaar ñett bu gaa commencé di ci dugal ay ay ay caaxaanam ay caaxaanam mu mhm. bind juróom ba yem fa da may dégg bu baax ñu ne ko ah yow fifty nga waxoon kat te juróom nga amagum te juróom nga amagum <laughs> mu dal di jël beneen sifru ba sifru ba ah. teg ko ca ca ca ca ca ca ca geneen wet ga. Mhm. waaw muy siful yasaar yi. waaw mu ne mu ne gars yi ne am nañ ko. ah mooy xam si li mooy xam si ñëw na lii ngeen bëggoon am. wax mi yan waaw wax mi yan. <laughs> te lii mu ngi bindu ci téere yi ñoom ñoo ko bind ci seen téere seen bopp borom xam-xam yi jëlee ko ci foofu. te lii mu fa. subhanallah. oustaz dafa doy waar nit ki si ñëwee tey. Mhm. ñi lay wax ahmadiya nii lañ mel. Mhm. nga leen di défendre. ngay jéem a indi ay lay di teg. wala sax li ci gën a doy waar waaye sax waa ji wax na ko borom téere bi wax na ko mhm. mu ne dañuy jël nit ka sol ko mhm. sponsor ko mhm. yow waa ji la woon ca gannaaw waa ji la woon ca gannaaw yaa ngi koy fàttale ko xam nga ne waa jooju dañ ko nàmpal kooku gars yi dañ koo jël nàmpal ko defar ko ba mu baax pour mu mu mu mu jàmmaaroog nit ñi te ñu ñu bëri nañ fii te lii gën a yéeme ñoom ci ca ña nekk ca nguur ga la ñuy xool. loolu itamit seen yoon la. Mhm. ña nekk ca nguur ga ñoom la ñu taget. Mhm. suñu jëlee ñooñu nag sponsor leen defal leen affaire yu bari mhm. te xam nga nguur dafa bugg lu neex. nguur dafa bëgg nga defal ko lu baax ndaxte dina taxaw gis ne su may nit am nañ lu baax nguur gu nekk bëgg na loolu. soo leen defalee duñu la fàtte. so len saga won sax way nga defal len lu bax dañu taxaw ne ki ku bax la ndax te dafa am lo len defal oustaz lolu mo indi gaay yi jël leen formé leen ñoy wulbeuti ku waat di ñew so waxee ci ñom ñu ne la déedéet waaw ñu ne la déedéet li nga wax ne amul fi kuñ feesal jémmiñam kañ may dëgg waaw waaw foofu may defense may dëgg sa sen yalla defal tok Cheikh ngam naka euh, euh, ben a ah, ah, waaw pas-pas nga wax mm-hmm. gëmuñ ne yonent bi alayhi mooy yonent loolu rek foog naa war naa doy jullit yi ñu seen diine ñun ñun suñ pas mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam mm-hmm. gannaaw moom amul benn yonent buy ñëw ba ila qiyamati saa te adduna di dugg te ñun fii Gambia maam mosu koo wax maam mosut koo wax maam li mu gëm mooy yeneen yàlla bi moo sax dañ koy tàgg tàgg tàgg tàgg ba koy tàggee duñ tàggee keneen dañuy taxaw naan xulaa aadamiyun wa xuluquhu malakiya yeneen yàlla bi lañ si jubleen mata adraktanaa li zamani baliya wa jinaahu nashku wa nufuusu sajiya saqat naa miraaran raaxatin haashamiya ñoom ko tàgg ñoom moom lañ tàgg bi sax tàgg bi ëpp jéggi dayoo waaye mosuñoo toog ne du du moom mooy yeneen yàlla bu mujj dañ koy tàgg gëm ne suba sax suñu amee jàqare àllaaxira moom moo leen say génnee hani an lana minhu shafaata fil ghadi yanaalu ridaaha kulla abdin muwahidi maam loolu la fi daan jàngale ala xataay min dambi aw taamudi maam loolu la fi doon jàngale si daara yi mm-hmm. dégg kon kon maam gëmut lim gëm mooy ñun suñ gëm-gëm mm-hmm. ne yeneen yàlla bi mooy yeneen yàlla bu mujj soo fi àndee nag yaa àndi safaan ba bokk na si seen aqida sëñ bi parce que aqida yi nga ma laaj mm-hmm. ñoom dañ daan wax ne ne qur'an bi gën a wér si qur'an mooy qur'an bi nga xam ne. Mhm. almasihul mawud boobu la andi. mooy si Ahmed Goulam bi mu andi. waaye ñun bi ñu yore nii du boobu moo wér. bon su ma la déggee. waaw. mooy ne ñoom seen yónnenti yàlla bu ñu wax ne yàlla daf ko yónni dafa indiwaale beneen alquran. boo bu utee suñ bos. kon léegi kii lan la lay waxee ne moom jullit la nga gëm ko. te ñoom dañ gis ne hadis bi mu wax tamit wax waxtaanam yi. moo gën a wér bu yeneen ti yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam. Eh, eh. yàq nañ kitaab yàq nañ sunna ba pare ba tey nit ñi di leen baag. nobody can understand it. loolu moom duñ ko mën a understand. ah. ah. waaw waaw oustaz xam nga man li ma mënta understand mooy. Eh. waaye yonent yàlla buy buy buy buy dee ci ci ci. ci ci ab wanag. loolu fu ñu ko mos a dégg ah loolu de ci ci ku fi si wanaag de nit ñi am ñaari xel lu wér ah yàlla na ko yàlla yërëm doy na waar pare ne la eh. eh. subhanallah kooku kooku naka nga nit di ñëwee di gumee kooku di wax ne kooku yónnent yàlla nga gëm ko yow da nga feebar dañ la war a faj loolu warloo ko warloo ko gëm koo xam ne dafa ci ab ab dañu bëgg xex l'islam rek waye duñ ko man l'islam dafiy dess abadam defaw defaw wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wallahi ñun suñ fi togon gambia yeb duñ ko wax yalla gënne ñu fi indi ñeneen ñukoy wax فيكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما اخر قوما ليسوا بها بكافرين لولو ما يدك الله اكبر لولو ما يدك سبحان الله لولو ما يدك ها والله سبحان الله كنا يوم سنه القران ومن الان xuraan <laughs> bi ak seen hadis yi waaji eh. moo gën a wér bu suñ bos ñun. sëñ bi loolu doy loolu doy na war te tamit makaane ajj suñ muqaddasaat yi lañ njëkk a yekk tamit bokk na si seen pas-pas ne xaadiyaan daa mel ni madinatul munawwara ak makkatal mukarrama bal afdal minhuma moo ko gën ah, loolu seen pas ah ñoo déedéet ñii su leen déggee yang dafa niroog dañ bëgg randal islam yëpp lay randal loolu lañ bëgg loolu fa ne yow soo ñëwee nga ne alquran bu nga am waaw Muhammad bu nga am mo gën a Muhammad bi Makka ma nga am mo gën a apon jéena Kadian mo gën for Makka ak Madina gis ah. nga oustaz da ngay gis walé bu nekk fi hmm. diggante qadiyani ya ak ak Shia ab le bi fa nekk Allah Akbar. Hah? Wow. Subhanallah. Syiah Rafidah, gëmuñ Al Quran bi ñuy jang. Madna mat na gëmuñ ko Lalu naa dégg loolu loolu am ko bi So waxee gaa ñu ne la eh, so rombee sen fa di nga gis ñu nga bind muhammad rasulullah ilaha illallah muhammad rasulullah na khatela. Hmm. même ni leen di tuddee fi qadiyaan ñu leen di tuddee Ahmadiyya lan moko indi ay naxaate kese ay naxaate kese. ay naxaate kese ndax de ñoom dañoo wax ne. Eh, Ahmadiya xam nga soo déggee ñu ne la Ahmadiya te nga nekk jullit da ngay rafet njort. Mm-hmm. da ngay rafet njort. Mm-hmm. waaye fekk diidit diidit xam nga lu tax Ahmadiya booba lañ ca jublu du yonent bi de. Mm-hmm. xam nga yonent bi ci suratu Saf. Ahmad yaati min baad ismuhu Ahmad. xam nga yonent bi la alayhi salaatu wasalaam. waaye nag ñoom. kañuy junj ñoom. mooy Mirza Ghulam Ahmad. loolu amul benn si Ahmad Muhammad Salah déedéet du kooku de. allahu akbar du kooku abadan. Hmm. ñooñu sore nañu. moo tax naxaata yooyu ñooy dem ba tey. ka bëgg alal. Hmm. ñu nax ko jox ko alal. ka xamul ñu nax ko dugal ko ci seen caaxaan. Hmm. waaye nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam diine bi bu fi bàyyi. te mu nekk ab yonent bu mujj. beneen yonent du ñëw. نيني نان خامن ان غلام احمد ان داي فن ان ياب يونت ان دو يونت ان والله كوكو ان يو نيكاتو ان كوكو گوم ان جولي سبحان ان كوكو گوم ان جولي تا ان سي موسى ان خمنا بلا سا بي نيو سي بنن اعتقاد li nga xam ne jaay nañ suñ diini. lu wér jaay nañ suñ ngor. wallaahi jaay nañ suñ lépp. lu wér lépp loo xam ne am nañ ko mi foor rek. suñ mhm. aada sax jaay nañ ko. saxe. laa ilaaha illallah. saxe day na waaw. saxe te yonent bi soo wax na lu am solo si mbiri alal. Mhm. mu ne doomi aadama dara du fees biiram. wallaahi ski. dara. mu ne law anna lahu waari min dahab. waaw wallaahi. soo amoon benn xuur boo xam ne dafa fees ak urus. Mhm. la tax a thaniya. wallaahi. dina ah waaye su ma amee ñaareel dafay mébét ñaareel. su ma amoon ñaareel rek maa ngi ok. su amoon ñaareel boobu. dina am ñetteel su ma amoon ñetteel bi dina fine da ngaa dégg kenn mu ne ah man su ma demee Europe tabax kër rek. boo mhm. xam ne naa si mën a dëkka ma tabax benn man luyaas ko maa ngi fine. dina tabax ñetti kër bi léegi ñëwagul. fay fay na wut ba tey. man taa illa ila arabi. so doomi aadama dara mun fees. biiram lu dul turaab. comme lu ko yonent bi alayhi salaatu so doomi aadama na bàyyi xeel si alal. Mhm, su dul loolu rek su jaayee diineem na nga xam ne moo gën a fort. Mhm. ngir soo ko jaayee ñàkk nga aduna ñàkk nga àllaxira. so nit ñi nañ bàyyi xel si. saabu maalo buñ lay jox ak xale yu ñoo fayal school ah. fees ak nga bugg a tukki ñu jox la ticket nga dem ñëw nga teg ne yow egg gis nga oustaz ma yokk la tuuti waaw yooyu wërsëg la allahu akbar mm. te wërsëg yàllaa ko yore mm, mm. ñun faw ñu am pas-pas boobu jullit day am pas-pas ne wërsëg yàllaa ko yore yàlla nag mën na koo jaarale ci keneen ak keneen waaye soo koy ut soo koy soo koy laaj wala soo ciy dem na nekk ci anam bu rafet bul ci jaay sa diini bul ci jaay sa sa sa sa sa yëfu àllaaxira waaye àddina tax ngay ngir ngiri di topp loolu benn saaku maana yaa xi nga xam ne sax am na ci ay kër yoo xam ne bis bu nekk ñu jeexal saaku maana loolu mu ngi fi mm-hmm. dafa jeex am ñoo xam ne wan week bu nekk ñu jeexal jeexal saaku Hmm. wa ñooñu ka leen di wërsegal da nga foog ne mën na laa wërsëgal waaye mën ko mëna lu upp lolu kon bu jaay sa diine bul jaay sa diine yaa nañ amin ya rabbal cheikh sa hmm. mën nga lay indi benen ya ci xaar bo xam bokk na ci pas passi hamadiya hamadiya bokk na ci sen pas-pas hmm. pas-pas bi gën ñaaw bo xam wa gambia gambiya dañ ci wara bay sen xel kullu muslimin indahum kafir moy lan bepp julit boo gis fi te yow do qadian yow yéeféer nga kon ñun ñu toog alfalaan nii ñun ñëpp ay yéeféer lañ si seen kanam. xam nga kañ ngay doon jullitam. kon hmm. loolu tax du ñoo julli suñu gën. yow understand ah, ah, yow understand nga kon ah, mbir mi nekkete lii tax. si la bokk si la bokk. loolu tax du ñoo julli si gannaaw paay. déedéet suñ paay déedéet demoon Banjul duñ julli si gannaaw imam ratib. duñ ko def waaw duñ fa ko def. suñ Musa dem jullee ji foofu. lu tax te kooku mooy suñ imaam al aljamiu iyaalun lahu man bu ma fi demoon waru dem seet ak ñun luñ gëm si suñ diine mooy ne sax bu ma ñëwee sa kër boo ma boo ma joxut ma jiite du ma warumaa jiite mm-hmm. yow yaa ma war a jiite yow borom kër gi yow borom ja jumaa ji mm-hmm. te ñun noonu lañ fi dundee lii lañ xam lii lañ ñu jàngalee si school yi ah. understand nga waaye gis nga baat lii moo may gën a tiital nag nga bëgg def suñ yi ak mam matar yeb yefe bon képp nga gambia ni war nañoo jox si xamaat yaay ah definitely speaking fofu dañ ko wara sét fi dafa garaw de cheikh moussa oustaz gis nga yow de nga yomb ba mu ëpp yow li ngay wax juk li ngay wax juk ki lay déglu ci alfalaa rek mo lay déglu amana sax ku la déglu defa ner sa bi radio bi karaj bëgg la déglu xam nga lu tax oustaz xam nga lu tax. Hmm. nit ñi seen diine moo des a ñor. nañ waxante dëgg. Hmm. seen diine bi ñuy oote woo. Hmm. moo des a ñor. ah mbokk mi. 15 minutes moom waaw baax ñu ji. te am na lu ñu fi dese de loo xam ne dina doon am solo. waaye bëgg naa etiqaad yi. waaw Sarr wax nañu yenn. waaw soo ñu mënee tamit dina baax. waaw xam nga oustaz man li ma bëggoon a yokk foofu. waaw li tax Mirza Ghulam Ahmad nekk ab yëfër. nekk kaafeer. te dinañ ci ñëw ci njeextal bi. waaw bokk na ci iddiaahu nubuwa. wala bi tabiatil xaal. waaw képp koo xam ne dangaa wootee woon ne ab yonent yàlla nga yow yëfër nga ndaxte danga fenloo aaya alquran danga fenloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. fenloo saxaaba yi. fenloo saxaaba yi. te ñii soo leen fenloo ana dëgg ba. déedéet dëgg amatul. wallaay ku fenloo alquran. Ah. fen loo eh. yónnent bi eh. fen loo saxaaba eh. duñ la déggal dégg amatu ci kaw suuf subhanallah def sa dëkk na moo gën màkk ak madina ah ñun kat duñ a déglu kay bokk na ca oustaz <laughs> waxuma jihaadantu ma ne jihaad ba tegu ci alxuraan ak sunna jihaad ba tegu ci alxuraan ak sunna mm-hmm. gars ñu ne loolu amul solo sax dafa war a jeex déet loolu ñoom rek waxuñ ko de ah. am nañu nekk si suñu biir ñu ne jihaad jeex na de léegi jihaad bu des mooy jihaadal làmmeñ non oustaz xoolal lii moo tax ma ne la jihaadantu gis nga jullit. <laughs> bala ah, ngay wax dara wolof nga làkk nag jihaadantu. jihaadantu. <laughs> gis nga jihaadantu moom amut. yooyu amut. li fi nekk mooy jihaad mu ngi fi te def yi des day addina tukki. bu tegu si ay principe yu wér. ah sant. Mhm. lii laa bëggoon a judd dinañ ko tànnal programme am na solo yoo xam ne dafay tegu ci ay léeg régal yu wér yoon yu wér. waxuma rek nga jóg def lu la neex nga tuddee ko jihaad dem bomb ay nit tuddee ko jihaad waxuñ loolu de yooyu ay caaxaan la diine indiwu ko lislaam buggu ko lislaam buggu luy mhm. waaye jihaad bu wér boo xam ne dangay nekk ci gannaaw amir mhm. mu digal la mhm. mu jar ko ca jamonoom ngeen def ko loolu mu fi de te dina fi des bobu boobu tamit ñoom ne nañ amul solo oustaz déglul beneen ñoom dañuy mi tashbih dañuy melal yàlla ak nit Eh? Eh? waaw waaw ah, ci seen pas-pas yi la bokk. seen pas-pas la ñu ne yàlla. ñu ne ñu ne yàlla day jël melokaanu nit. waaw. les écamines les jeux yi ñu ko jël. te yow wax naa la ne. wax naa la ne ñoom dañu am eh. seen firini bopp. good. misli boobu ak xaatam yi ñoom da lu leen neexee te wax na yow yow xam nga yow yow dégg nga wolof Moussa dégg na wolof. Hmm. am wëñ wëñ wëñ la la la la laa si jublu. mun naa am buy naaw mun naa am buy ñaw. wax nga dëgg mun naa am eh, eh, xànq fi koy tege. waaye benn baat boobu nooy xamee firéem bi yow yow wolof bi. num mu ñëwee si baat bi ci foofu ma ma ma ma defar suma mbubb si. waaw. boobu nga xam naa ne wëñ bi la bu ñoo ñawee. waaye dàqal ma wëñ bi nag. ah waaw xam naa. wëñ naaw la. <laughs> li may dëgg. kon loolu kan moo ko xam wolof bi moo ko mën a xam. baatu arab tamit bu ñëwee kan moo la koy mën a firil mu leer. Ah. arab bi ak ku ko dégg. ak jàng waaye ki yow nga ne sa yàlla. english la yow nga ne sa yàlla english la ka ñu suñu quraan parce que quraan arab la. doo mën a wax lu leer de. dëgg dëgg ah, waaw oustaz am na beneen comme que waxtu bi. daanaka mu ngi jàmb si daanaka daal waaw. Eh, nee nañ. <laughs> yi tamit yàlla am na doom. Eh? waaw. yàlla am na doom. xamad yee wax nañ loolu wax nañ lii ci seen dére yi ñu ne yàlla am na doom am na doom inna lillahi waaw am na doom te ñun ñëpp jàng nañ qul huwa allahu la ca gën a gàtt lam yalid walam yuulad ñu yàlla am foog naa ne Gambien bu topp Hamadiya bi xamut bi Hamadiya seen pas-pas ngir Gambien bi déedéet xamewuñ ko caaxaan Cheikh te Gambien bi dafa bëgg diine loolu dëgg la te Gambien bi foyawut islam déedéet soo ñëwee topp ñi foog naa ne dañ leen réeral ñun ñu ngi toog si kaw gi jaara si benn dëkk biñ nekkoon am ku ñëw si man. mu ne ma yéen da ngeen gëm ne jinne am am na waaye jinne amut te moom Ahmad Yàlla. mu ne jinne amul waaw loolu si seen. xoolal loolu ko pesut looloo tax jinne ko pesut moo tax si ndong li su ko jinne pesoon mu xam. waaye man ma ko wax ba xalaqal insaanu yàlla wax na ko wa xalaqal jaan na loolu noo koy firee mu ne ma loolu mooy ki nga xam ne daa làqatu rek. ku làqatu rek mu mbiram lënt la rek kooku mooy jaan na. waaw ba lu la yàlla di wax maa xalaqtul jinna. wal insa. wal insa waroon na am si. waaw wal insa maa xalaqtul insa rek mu bàyyi bi. ñoom loolu mooy seen pas-pas. pour tegal la loolu tamit si waxi sëñ bi. rafet na rafet na. xam nga wax nañ sànq ne dañoo. xaatam bi ñu doon wax. waaw tamit ci seen ngëm waaw ci seen pas-pas na yeneen bi sallallahu alayhi wa loolu moom wax nañ ko fi ay yoon i yoon. Euh, beneen bi ngay gis oustaz mooy. Mm-hmm. dañoo am alaaqa dañu am di jokkaloo bu rëy bu mag seen diggante ak dawlatul yahud muy yahudi yi muy muy muy muy eh, Israël xam nga lu tax sax bëgguma woon a wax baatub Israël ndaxte baatub Israël ci ci ci ci usra eh, kii lañ bokk yunteel a yàqu moo tax bëgguma woon a wax baat boobu waaye dawlatul yahud ñoom dañoo am pas-pas ak ñoom dañu am lu lu lu leen tàqaloo ñoom ñaar lu lu rëy. Hmm. kon xam nga ne ñooñu nga xam ne xeexu hmm. lislaam moo leen di tax a jóg. Hmm. yahudi yi islam xeex lislaam moo leen tax a jóg. kuñ joxanteeg loxo. Eh. ah war nañoo bàyyi xel. loolu ci seen passation. Cheikh Moussa am naa waxtu wi daanaka eh, lañ amoon si waxtu. waaw sa di ma baal rek. waaw waaw baal ma ma jékkali la ma indil la fii rek. pour jullit ñi nekk ci réew mi mën a xam ne. gannaaw soo dégloo li ñuy wax yépp mm-hmm. lañ ciy jàngee mooy mm-hmm. képp ku weddi alquran mm-hmm. ku weddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga weddi ne yonent bi du moom mooy yonent yàlla bu mujj nga weddi loolu nga weddi loolu nga weddi ne jinne amut nga weddi ne Makka ak Medina am na feneen fu ko gëm. fu ko fu ko fu ko ëpp. maalimul islam. waaw. saa soo defee lii bu borom xam-xam yi. seetantale yi yëpp lañ gis mooy ahmadiya ay yéeféer kenn wartu dugg si seen diine déedéet gars yi nag dañuy foog ne imaam Fati moo ko fi njëkk a wax xam nga ñun wax déedéet. waaye jiital ngeen ay kilifa. Ah, Fadera. waaw Sifo Kanté. Ah, waaw Cheikh Boundiagne. waaw Cheikh Boundiagne Cheikh Boundiagne dafa Jibril Mahdi Koudia. waaw seen ah. kilifa yu tedd yi. jazakumullahu xeer ñii yëpp. leeral nañ ne Ahmadiyya ay yéeféer lañ. donc Gambien bi daal xamul waaye daal foogoon na waroon nañoo am beneen jubluwaay si Ahmadiyya because ay kilifa yoo xam ne dañ leen teral dañ am daraja si dëkk bi ñooñu si jiitu. waaw oustaz sax balaa ngay balaa ngay balaa ñuy jeexal. Eh. ñoom dëkk buñ juddoo woon sax fañ fàqeekoon sax dañ leen fa dàq. mooy fan. Pakistan ak India. amatuñ fa bés. amatuñ fa bés. allahu akbar amatuñ fa bés. ñooñu seen borom xam-xam yi dañoo signé ñoom yëpp ñu d'accord nañ ñi ay yéeféer lañ. allahu akbar sëñ Moussa mbir mi jeex na. lu ma gis daal léegi. yan yaa defal saa yan ban advice ngeen ay jox ña nga xam ne ñu ngi déglu ak ña nga xam ne Gambien lañ ak ña nga xam ne jullit lañ. ñu jox leen advice bu ndaw. dénk leen ñu sàmm seen i diina Cheikh Sam. advice bi may joxee nit ki sa diina jaral la dara. Mm-hmm. parce xamuloo ndax suba ndax mbaa gannaaw suba nga fiy jógee. te si sa bàmmeel bi bàmmeel dafa lëndëm. lu la si njëriñ mooy nga tënku si diina bu wér. bu la yàlla xañee loolu na la lu nekk. war ngaa jóg guddi ngay ñaan yàlla. pour yàlla xam loola dëkk. nga mun a topp dëkk. am parce que àdduna daa gàtt tànk. àddina bi day jaru ko place yi jaru ko farax farax farax bi jaru ko saakuma la yeeg yooyu yëpp jaru ko feek jëluloo sa diini nga teg ko sa kanam nga ciy xool guddeeg bëccëg mm-hmm. la ca la la ca la ca yàlla bëgg mm-hmm. defal loola la ca yonent bi alayhi salaatu wasalaam bëgg mm-hmm. defal loola la ca yàlla bëggut yonent bi alayhi salaatu wasalaam bëggu ko ay saxaabaam nekkuñu ca woon bu ca nekk bu ca dugg àddina nag su la jaralee palaas su la jaralee moo xam président nga moo xam ministre nga moo xam koo mënti doon ci kaw suuf bàmmeelang lay xaar bàmmeelang lay xaar de président bi dina dee. Mhm. ministre bi dina dee. Mhm. borom xam-xam bi dina dee. Mhm. xale ba dina dee mag dina dee te suñu dee hee yàlla lam ñuy laaj ci biir bàmmeel ba mooy yonent booba de yàlla lam ñooy laaj mooy suñu diine yàlla lam ñuy laaj mooy borom bi azza wa jal. alhamdulilah yàlla yàlla defal tawfiq. amiin yaa rab mbokk yi ñoo seetaan eh, fii la te suñu baaraam. dem soobati borom bi subhanahu wa taala yéen ko dégg nañ fexe ñu sàmm suñu diine. ngir yàlla subhanahu wa taala ñu bàyyi suñu xel si baamel ba nga xam ne ñu ñëpp dinañ fa tëdd ñu ngi am fii di leen wax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu.